Connect nak Sénégal mi ci adhéré en 2018. wayé euh, dix bi euh, euh, en 2019, euh, madame Néné Fatmata daf ñu demander ni vraiment léegi nak war nañu taxaw taxaway bi nga xam mo war pour que Youth Connect Sénégal mëna a lo loo xam voilà lu ñu mëna a gis la lu ñu mëna utiliser la pour vraiment accompagnement bi nga xam mom lañu wara apporter le génie donc ñu commencé euh, woon ci liggéey avec le programme des Nations Unies pour le développement mais en un moment affaire yi taxawoon tuuti ndax euh, pandémie bi euh, donc affaire yi taxawaan tuuti mais ginnaaw bi ci le cabinet PCA ñew ni dafa bëgg jappalé jàppale ministère pour ñu pour ñu taxawal qui plateforme bi ñu nekk ci di liggéey ba tay li ngeen gis nii Euh, mooy euh, résultat wu euh, liggéey boobu nga xam ne cabinet PCA ak ak ministère de la jeunesse donc liggéey nañ ko léegi nag contenu yi nga xam ne ni moom lañu présenté nii te ñu gis ni am na acteurs yu bëri yoo xam ni contenu yooyu ñoom pour ñoom am na solo et bëgg nañu liggéey ak ministère de la jeunesse pour ñu gën a am taxawaay ñoom ci PS ci ci Youth Connect bi donc contenu yooyu yëpp dañuy bëgg a tàmbali avec euh, les acteurs donc euh, les partenaires euh, programme des Nations Unies pour le développement avec Yenen, agence système des Nations Unies avec Yenen même partenaires qui ont xam ne taxaw pour ministère de la jeunesse pour que Youth Connect Sénégal nekk une réalité Nous avons ñëpp dañuy nar a à conseil de la jeunesse jeunesse Sénégal pour que nous puissions di vraiment nous liggéey liggéey bi nga donc Euh, aussitôt bu ñu génnee ci ñaari weer yooyu rek dinañ mën a lancer le euh, en tout cas use kon use connect euh, Sénégal donc dinañ ko mën a lancer use connect Sénégal nag li ko tax a jóg moom moo tax a jóg PSE priorité jeunesse PSE priorité jeunesse c'est pour ñu connecter ndaw ñi ak opportunité fu ñu mënti nekk ci Sénégal ci Afrique use connect Sénégal tamit loolu moom mooy objectif am ba tax na tey mun nañu wax ni use euh, Connect Sénégal euh, vraiment le fait que ñu euh, acte buñ ci posé rek on peut mën nañu ko considérer comme acte de mise en œuvre du du du PSE priorité jeunesse ñu contane nak ci taxaway bi nga xamni ni acteur yi am nañu ko partenaire yi am ko pour que processus bi nga xamni bi ci dañuy djublu ci ñaari wër yi vraiment mu nekk un projet participatif inclusif ñëpp bokk ci ndaw ñi am ci taxaway bu dëgër dëgër dëgër ci euh, ci ginnaaw seen président xaadim euh, Diop bi nga xam ne bi moom moo nekk fii pour que vraiment ñu am euh, plateforme boo xam ne bi dina amal njëriñu seen ndawu Sénégal dina leen amal njëriñ bi nga xam ne bi moom lañ ci xaar jërë ngeen jëf